découverte ak suñu mbokk yi seetaan ci suñu site internet 28 pro ñu ngi am mbégte di leen nuyu di leen ziar baax a baax fas yéene ñëw nag fii nga xam ne moom mooy Darou Mouhty di benn ci bërëb yoo xam ne ni maanaam bërëb yu ñu war a waxtaanee tey ñu fas yéene fi amal waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy le premier magistrat monsieur bi tey di maire bu commune Darou Mouhty dama koy bàyyi rek mbokk yi ñu seetaan. mu nuyoog yéen boo ko defee ñu jublu ci li nga xam ne moom moo ñu fi indi tey ci waxtaan bi monsieur le maire ñu ngi lay ñi ngi lay fay ñoo ngi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yëpp nga xam ne ñooy seetaan seen site yi di leen ziar di leen baalu àq di leen baal ak ci euh, julli gi ñu jógee tabaski gi di ziara bu baax a baax Serigne basiiru Antañang bi nga xam ne mooy xalifa bu Daaru Moxti di ko ñaanal yàlla gën ko yàggal suñu kanam gën a yokk ak wéram di jaarale moom suñu ziyaara di ko jaarale ci moom pour mu joxal ñu ko Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo yilif euh, murit réew mi yëpp euh, di santaat bu baax a baax di nuyu waa Daaru moxti yëpp jërëjëf monsieur le maire mu jóbbi tey su doon présenté wu nan lañ ko mën a xamee moom mooy kan fu mu juddoo présentation bi ak fan la jaar li nga xam moom mooy carrière am njàng mi. Hmm. daa bëgg mu dikkal ma ci. waa jërëjëf jërëjëf man nag euh, Madiop Bitèye laa tudd nekk maire Daaru Moxti ñu ngi ñu élire euh, suñu liste ànd ak Modou Diagne Fada ñi ngi gagné woon élection yi le 29 juin ñi ngi ñu faloon maire itam le 19 août 2014 lañ nekkoon maire Daaru Moxti man nag euh, nekkoon naa fi secrétaire général du mouvement des élèves et étudiants libéraux fële ca Ndakaaru ci parti démocratique sénégalais bokkoon nañ ci comité directeur bi ak instance parti bi yëpp. Mhm. Euh, bokkoon nañ ci kuréelu ndaw ñi itam. Euh, ci biir université itam euh, yàlla dogal na ñu bokkoon ci ñi nga xam ne doon nañ jiite étudiants itam ci faculté de sciences et techniques laa nekkoon bi ma amee sama baccalauréat doon jàng li nga xam ne moom la ñuy wax science naturelle. Euh, boobu itam bokkoon nañ ci kuréel yi nga xam ne ñoo doon jiite ndaw yi ci biir université ci biir faculté bi mais également ci li nga xam ne moom lañ doon wooye kuréelu étudiant yëpp bu université bu bu Dakar yàlla dogaloon na ñu ñu ñu ñu bokkoon ci nekkoon nañ député à l'Assemblée national aussi euh, de 2010 à 2012 nekkoon nañ euh, député à l'Assemblée national bon nekk fii nag Darou Moussi Euh, di maire bi depuis fin 2014 ba léegi si mbirum liggéey aussi ñoo ngi liggéey depuis 2007 ministère de la santé et de l'action sociale yàlla dogal ñu nekk économiste de la santé également di liggéey loolu ci côté yi suñu mbokk yi nekk foofu. ban genre ndaw nga woon ku léegi loolu laa bëggoon nga dellu si waat koo xam ne ku dal la woon ku nu daan bàyyi xel wala. ci rawatina ci dëkk bi nga xam ne foofu la nekk. bon yàlla dogal na nag ñun bi ñu gënee nekk ndaw doon nañ jéem a dugg ci kuréel yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi nekk euh, parce que bi ñuy commencé dugg ci kuréel yi rek ay boobu bu ñu ñu ngi def cinquième yaakaar naa cinquième lañ njëkk a dugg ci suñu bureau ASC mu nekk ASC Kanigui gi ñu bokkoon ci comité directeur bi mais également bokkoon ci délégué yi nga xam aussi ñoo ngi doon ñëw ci kuréelu nawetaan yi mm-hmm. yi nga xam ne moo nekkoon ODCAV ORCAV zone de Darou Moussi ñoo ngi ci doon nekk di yëngutu ndànk-ndànk di jàng ndànk-ndànk au côté de nos grands mm-hmm. yi nga xam ne ñooñu mag te nekkoon ci kuréel euh, kuréel yooyu ba ñu nekkee au lycée également collège lycée ñoo ngi doon jéem a bokk aussi ci kuréel yi nekkoon foofu noonu Adar Moussi ñoo ngi woon ci foyer des jeunes bi ñoo ngi woon ci mouvement nawetaan bi bi ñu demee université itam ci mouvement bi nga xam ne moo jiite ndaw étudiants yi nga xam ñoo dëkk Darou Mousty nekkoon Dakaaru demoon nañ ba jiite ko ñu koy woowee Amedat euh, di euh, association bi nga xam ne mooy euh, jiite étudiants yi ak élèves yi nga xam ne Eh, ñoo dëkk Darou Mousty nekk Dakar muy amicale des élèves étudiants de Darou Mousty à à Dakar donc noonu daal lañ defoon suñu ndaw ñoo ngi doon jéem a dugg ci lépp loo xam ne ndaw waroon na ci yëngutu mhm. ñoo ngi doon doon yëngutu pour jàng pour former wu pour nous préparer maintenant est-ce que loolu mooy leec wala dëgër fit wala leen en tout cas ñoo ngi doon jàng. Uh-huh. bokkul woon kon ci li nga xam ne moom moo nekkoon ak gone yi jamono tey ñoo xam ne maanaam fu ñu toll dégg coow ña nga ca. rawatina nag ba nga xamante ni yaa ngi bëgg a dugg rawatina bi nga duggee sax ci mouvement nawetaan boobu nga xam ne ku ko dégg rek xam ne ne maanaam mbiru jeune la te foofu muy coowantoo di am waaw euh, xam nga soo nekkee ci mouvement étudiant faw nga dégg ci coow nga nekk ci mouvement politique faw nga dégg ci coow te yooyu yëpp bañ cay dugg âge bu ndaw lañ lañ amoon donc doon na bari coow d'ailleurs en 2005 euh, su ngeen fàttalikoo am na benn étudiant boo xam ne jamoon nañ ko université man mii la woon c' était en en en mai 2005 jàppatuma exactement le jour mais c' était en mai 2005 mu indi fi coow lu rëy ñu ne am na étudiant PDS boo xam poignardé nañ ko université ñu yóbbu ñu hôpital euh, poignardé ñu damm suñ loxo tout ça bon peut-être suñu nekkutoon ci mouvement yi. xaj na. yooyu xanaa moo la moo taxoon ba suñu suñu engagement suñu engagement suñu gëm-gëm am na loo xam moom lañ gëm kenn mun a tax bañ soppi ko donc du adversité politique du kilifa politique du kenn li ñu gëm gëm nañ ko te kenn munu ko soppi ci ñun. donc ku ñuy rey aussi ci loolu nga ñuy reyaale te bu fekkoon dañ doon daw aussi kenn du ñu jam. bu ñuy jam ci ginnaaw lañ ñuy jam. mën naa kon ku dëgër fit nga woon daal. ah doon en tout cas Darou Mousty mënoo fi dëkk. te doo ñeme. Uh-huh. donc fi moom ku fi dëkk da nga da da nga ñeme. alors euh, ci li nga xam ne moom ngay yëngu. Mm-hmm. Euh, lan moo la. ban virus moo la ba nga dem dugg ci politique. woy nan la la euh, virus bi xam nga soo soo xoolee suñu grand yi toog ay politiciens lañ ñoom ñëpp. Mm-hmm. ñoom ñoo ñu mag ñoom ñoo ñuy teete ci politique aussi donc dañuy juddu fekk leen ñoom ñuy yëngutu ci politique. ñu ñëw yàlla dogal man sama trondoo Mbaye maa Diop Diop moom papam bokkoon na ci ñi nga xam ne. ñoo daan indi Ablaye Wade fii ci ci dëkk bi jamono yi nga xam metti woon na lool donc ñun ñu du judd ci environnement boobu noonu gëm Ablaye Wade boobu noonu te xamuñu ko. ñuy dem ba mu yàgg yàlla génneel ñu moo Modou Diagne Fada mu dëkk ci dëkk bi nekk ndakaaru di yëngutu ci jeunesse politique jeunesse estudiantine ñun tam loolu bokk na ci li ñu gën a motiver gën ñu mobiliser. ñu gën a gëm li nga xam ne yaakaaroon nañ ko ni te xamuñu ko woon mm. mu teete ñu ci jàngal ñu ci ba ñu euh, gën a engagé wu politiquement au côté de lui au côté di président Abdoulaye lan moo tax nga tàmm moo jaan Fada mooy li moo expliqué xam nga Daaru Musi lañ nekkoon xool ñu nekk ndaw gis ne moom bokk na ci ndaw yi nga xam ne à Daaru Musi ña nga ci bitti mm-hmm. ba pare nekk ay leader loolu yombutoon a gis ñu dëkk ci dëkk bu sori ndakaaru ba pare nga mën fi jóge dem ndakaaru jiite étudiant politique jiite étudiants yi nga xam aussi defuñu politique loolu bokkoon na ci li nga xam ne daf ñu doon gën a encourager et gën a mobiliser à nous engager à ses côtés c'est pourquoi ñu engagé wu à ses may jàll ci question bi nga xam ne fa jëm léegi nii mu jëm ci sa euh, maanaam euh, mairie bi nga xam ne moom nga jiite sa souvenir bi nga xam ne moo la gën a marqué ci mhm. sa passé mhm. te loolu loo xam ne maanaam ma jóob bi tey du ko fàtte mukk mhm. mu koy bàyyi xel tout le temps dana dem ba benn moment est-ce que boo xam ne dana la perturber wala boog dalay lay gën a motiver souvenir boobu noonu laa bëgg nga dellusi ma ci. bon su moo doon wax souvenir ah peut-être euh, euh, mën naa ne deux ba ba ba ba ba mhm. parce que peut-être deux yi mën naa jàpp ñaar yoo xam ne nii politique la. Mhm. ak boo xam ne nii du du du du politique. Mhm. mën nañ ci wax rek li nga xam ne moo gën a jox. Madiop bi tey tur ñaari affaire la benn bi c'était notre élection à la tête du mouvement des élèves et étudiants libéraux en 2000 en 2002 mm-hmm. foofu lañ commencé nit ñi man ñu gën a xam mais bien avant on était déjà dans les mouvements étudiants di diriger yu mel noonu mais ba ñu ne yow lañ fal tey ça c'est un événement boo xam ne mënuñu ko mënuñu ko fàtte parce que processus bi aussi c'était un processus boo xam ne nii c'était pas si facile donc il fallait vraiment travailler pour que le maximum d'étudiants appartenant au parti man ñu soutenir dans la dynamique bi ñu nekkoon. Mhm. donc avant ñu dem élection aussi on avait entendu beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas gagner et tout ça et le jour du scrutin ñu ñëw on a gagné haut la main il avait pas de contestation là c'est c'est un souvenir boo xam ne je ne peux pas je ne peux pas l'oublier beneen bi c'était mon agression au mois de mai à en 2005 à à l'université là aussi euh, c' était un événement boo xam ne nii c' était un tollé général au niveau national au niveau international la presse international même parler de de ça donc ça aussi bokk na ci li nga xam ne tax na ay nit xam ma te xamuñu woon peut-être aujourd'hui il y a beaucoup de télévision euh, ñiy feeñ ci télé bi la ñu xam mais ñun avant un peu avant télévision yi c' était les radios un peu donc moo tax ñu bëri duñu xàmmee mais ci événement boobu la ñu ñu bëri gënoon a gënoon a xame événement bi nga xam ne nag c'est pas politique c'est mon admission au au baccalauréat j'ai des amis yoo xam ne ni dañ may rappeler toujours cet événement là extraordinaire pour man parce que euh, attente bi metti woon na chaque jour nga xëy di dem euh, lycée di xool kañ la ñuy génne résultat yi bon yaa ngi xalaat dëkk ba ñu ngi lay xalaat mm. yow ñëw goo vacances kon yaa ngi def examen mm-hmm. y'a un de mes amis qui me toujours mu ne ma keroog bi ñu programmé résultat yi rek biñ la tuddee da ngaa yanu da ngaa jóg rek yanu <laughs> te moo la ëppoon xam <laughs> naa te moo ma ëppoon ba may mu ne ma. <laughs> maa la waay bàyyi ma waay man wooguñ ma yow nga may. nga may yëkkati nga may yëkkati. Uh-huh. donc ça c' est vraiment extra extraordinaire je me rappelle toujours de ces de ces événements là que je considère comme des événements yoo xam ne ni. c' est intéressant et c' est inoubliable à mon ñu ngi ci moment boobu sax muy moment baccalauréat boobu noonu mm. euh, la commune de Darou Mouhty euh, est ce que. Euh, comme euh, ñu ngi koy gisee ci yenn ci ay commune bokk les jeunes mm-hmm. wala bokk commune bi ci euh, jël en charge ñi nga xam ne moom mooy les candidats di leen restaurer mu Diop xalaatoon na ci wala mu ngi ci loo mi ngi ci woon oui ñun nag depuis bi ñu ñëwee Darou Moussi à la tête de la mairie ba léegi chaque année bu élève CM2 yi di def examen dañ leen di jël en bu élève troisième yi di def examen dañ leen di jël en charge bu élève mm-hmm. terminale yi di def examen aussi dañ leen di jël mm-hmm. bon jël bi nag léeg-léeg mu nekk total. Mhm. léeg-léeg c'est une contribution. parce que ñun bu ñëwee indil ñu ne ñu lii lañ bëgg directeur école bi. Mhm. parce que am na ñetti centre école primaire yi fi nekk. donc ñoom dañuy dajaloo ñëw nañ lii lañ bëgg ku ñu ci jàppale. Mhm. pour la prise en charge des élèves des des enseignants. d'accord ñu on leur dit si on peut tout prendre en charge on prend tout en charge. bu ñu mënta jël lépp ñu am lu ñu ci jël. collège yi aussi il deux collèges ils font la même chose ils viennent. ñu ñëw jàppale leen aussi si examen yi le lycée également def la la même chose boo bi ci mujj mooy le lycée et dans les jours à venir ce sera les les le BFM e te ni ñu ko jàppee ci ñaar yooyu lañ koy lañ koy jàppee donc loolu n'a pas de problème par rapport à alors étudiant nga woon fan yee ñu génn dégg nga dégg nga fi coowlu étudiants yi ñu rajee hmm. mais seen lu jiitu seen radiation dafa am ay xew-xew yu fa am. loolu yow boo ko boo ko nga nekkoon étudiant moment yooyu noonu naka na la def. oui ak ban euh, conseil nga leen di jox pour ëllëg. bon man j'ai été étudiant et contestataire xam nga l'étudiant moom. Mhm. du nangu l'ordre normal établi comme ça toujours il faut qu'il monte que no je ne suis pas d'accord je suis l'intellectuel je suis nangam nangam et ça pour moom. nan nga koy prouver mhm. ni nga koy prouver rek mooy euh, manifester wu s'opposer wu c'est ça c'est ça l'étudiant en réalité à un pourcentage très important li ëpp ci étudiants yi noonu la ñuy noonu la ñuy euh, doxe donc c'est compréhensible que étudiants yi di manifester wak du mais man à mon avis am na yoo xam ne ni man quand j'étais étudiant aussi jeune ne le faisais pas hmm. d'ailleurs il y a certains de mes collègues collaborateurs certains yooyu camarades euh, dañ ma daa wax non non non on n'est pas d'accord de ça yow t'es pacifique nangam nangam non hmm. parce que pour man nit ki mën na manifester wu mais on ne doit pas casser mhm. on n'a pas besoin de ça maintenant euh, nit ñuy déggee nag souvent suñu njiit yi mooy bu gars yi manifester woo rek lañ leen di dégg mais su gars yi nee def nañ assemblée générale dem ñibbi su très souvent y a pas mais si les gens sortent dans la rue souvent autorité bi dana yëg ne génn nañ mais pour man mën nañ génn ci mbedd mi sans pour autant ñu yàq quoi que ce soit bon c'est vrai que souvent bu ñuy génn nag autorisation dañ naan leen amuleen autorisation donc bu ndee pas sorti nangam nangam mais je pense que war nañ revoir à ça pour permettre aux chaque fois que bëgg nañ marche ñu bàyyi leen ñu marche mais nag ñu xam ñoom itam fu ñuy yem ce qu'on a vu récemment vraiment ñun tey suñu temps mos moon ko gis c'est vrai que Euh, suñu temps doon naa gis ne y avait une violence qui commençait à l'université mm. peut amoon na avant mais en tout cas y avait une violence qui commence cette violence aussi c'est la société en réalité parce que li nekk ci société bi rek moo dem ci biir université bi parce que euh, quelqu'un l'a rappelé dernièrement que les étudiants euh, jàngalekat yi dañu mës a nekk seeni alliés donc suñ demee ba étudiant dem di fël microbe jàngalekat ça pose problème donc ñooñu lan la ñuy xalaat lan moo nekk seen seen seen bopp mais c'est ce dans les réseaux sociaux c'est de la violence c'est des insultes c'est des choses yoo xam ne ni xamuñu ko woon donc xale bu ndaw bi màgg ci loolu loolu lay yóbbaale biir biir université c'est vraiment désolant mais man je ne souhaite pas du tout pas du tout on les a sanctionnés. Il faut des sanctions aussi, hein. Parce que aussi, on ne peut continuer comme ça. Euh, gars yi ku def dara rek après nga wut lay ñu daal di bàyyi daal dem seen doro finalement tout le monde sera menacé et la longue kenn dootu ñemee defati dara ci loo xam ne ni mooy sa obligation merci beaucoup monsieur le maire maanaam parti boobu moom nga xam ne intervenir nga ci mm-hmm. alors ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, fauteuil bi nga toog muy mairie bi euh, lu ngeen noo jàngatee mandat bu yàgg bi nga xam ne nii mm, élection yi locales yi am na ko en tant que maire. naka est-ce que arrangé na leen réellement est-ce que tamit da leen di dolli. objectivement man je pense que baaxul. je le dis souvent. que ne Abdoulaye Wade en 2007 bu fekkoon ne organiser woon nañ élection locale man jàpp naa ne Abdoulaye Wade mooy am majorité ci réew mi mais ñaari at yañ ca yokk. dem 2009 diggante 2007 ba 2009. yëf yi dafay soppeeku métti di commencé di feeñ mbënd yi di am problème yi di am nit ñi di mere les exécutifs locaux même s'ils sont pas responsables donc ici ajoute la veille des élections présidentielles gars yi di gën di am ay prétextes yu ñu mën a l'opposition aussi organisé wu à travers euh, les assises nationales ba gagner les plus grandes villes au au au Sénégal là aussi je pense que le même problème peut se peut peut peut-être retrouver ah parce que deux ans yi nga xam ne yokk nañ ko ci mandat bi deux ans yooyu euh, tax na lassitude am tax na de nouveaux leaders également sortent de nouvelles contestation de nouveaux objectifs génn dans certaines localités et forcément euh, c'est de batailles très rudes qu'on va qu'on va qu'on va constater moi j'aurais bien aimé vraiment que élection yi ñu koy mën a tenir à date C'est dommage qu'on n'a pas pu le faire, mhm. mais espérons qu'en janvier prochain, on va organiser les élections et que nous allons renouveler les exécutifs. Les, parce que parfois même, il des problèmes. Parce que ces adversaires, ça, non, vous n'avez aucune légitimité. Mmh. Bon, ça, ça pose problème. yow munoo démissionner munoo bàyyi donc tey am na koo xam ne nii lim la mën a wax rek pour naxaral la mooy tu n'as pas de légitimité ton mandat est terminé bon c'est vrai que le mandat est terminé mais il y a une loi qui a prorogé le le mandat qui fait que il toujours la légalité et la légitimité parce que la loi munoon ne la loi n'est pas légitime. d'accord alors euh, est-ce que pare pour mettre en jeu euh, fauteuil de maire ak surtout tamit euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, maanaam ni nga war a maintenir li nga xam ne moom moo ci nekk. Euh, pare nga pour mettre ko en jeu. oui oui bien sûr parce que le mandat su jeexee forcément on met en jeu nu ñu koy wax sax le le mandat ça c'est obligatoire mm-hmm. mais on est dans un parti politique tey jii parti politique boobu mooy le yeesal. avec euh, Modou Diagne Fada à sa tête ñu nekk aussi dans une coalition la majorité présidentielle su ñu dem élection aussi li ñu bëgg mu nekk le directives du partie mooy ñu ànd ko ensemble avec la coalition tant que c'est possible mhm. on sera ensemble maintenant la coalition nag moom mooy ñëw xool ne ah ñun kat euh, mairie bi y avait quelqu'un boo xam ne mi ngi àndoon ak ñun moo ko yoroon on fait le bilan Et on va regarder pour dire est-ce que bilan bi mu présenté ça mérite ñu présenter comme notre candidat ou bien ça ne mérite pas d'être notre candidat bu fekkee ne la coalition wax na ne il mérite d'être notre candidat mais je serai le candidat si la coalition et le parti disent que non il ne doit pas être le candidat je ne serai pas le candidat. Mhm. mais wax nañ ne maanaam bilan bu tuuti nga yore. oui xam nga la c'est c'est c'est les adversaires mais si on avait le temps on pouvait faire le tour de de la commune de daar Moussi si vous voulez aussi on peut revenir sur le bilan élément étape par étape parce que aussi sooy apprécier nit ki aussi il faut l'apprécier en fonction de ses compétences mhm. les collectivités territoriales dañu am ay compétences yoo xam moom la leen état ne leen dénk naa leen lii na ngeen ci yàpp compétence yooyu yi ñu ci gën a gis mooy li nga xam ne mooy mbirum santé mbirum éducation presque mën nañu wax soixante dix pour cent de compétence yi foofu la foofu la jëm ensuite am na la jeunesse le sport et loisir loolu mooy compétence yi nga xam daanaka collectivité territoriale bu nekk yaa ngi cee jëm a des na nag yeneen comme euh, nuñ koy wax sax le domanial suuf si ñun à Darou Mousty on a la chance que c'est comme Touba suuf si sëñ bi moo koy moo ko yor ñun duñ ko gérer duñ ko kii moo tax du ngeen ñu dégg duñ ci dégg coow daaru mu si ci mbirum suuf bu dee ndox mi également lañ cee def mooy extention mais gérer wuñ forage gérer wuñ gérer wuñ dara maintenant par rapport à ces compétences nag mën nañ ci dikk élément par élément si vous voulez. alors ci biir commune bi li nga ko waxee léegi élément par élément certes am na yenn élément yoo xam ne nii mm. visité nañ ko lu demee ni abattoir communal bi euh, yàggu fi Euh, bi ngeen ko taxawalee am na bu fi nekkoon waaye da ngeen indi beneen bu yees ñu wax tamit ci li nga xam ne moom mooy état civil bi fi ngeen ko fekk ak fi ngeen ko yóbbu loolu tam bëgg nañ nga leeral ñu ci bu ko defee yeneen réalisation yi mu nekk ci dëkk bi nga mën ma ko maanaam baaxee ba xam parce que gis nañ fi ci entrée bi rek lu fi amul woon espace bu gën a yaatu muy marché central bi voilà donc marché centrale mën nañ commencer même par le par le marché central hmm. c'est vrai que c'est l'État état moo ñu jàppale par un engagement bu état jëloon depuis 2013. Mm-hmm. ne dinaa tabax un marché à Darou Moussi. yàlla dogal bi ñuy ñëw aussi fin 2014 état tabaxul marché boobu. Mm-hmm. ñu nekk ci di ci dox di ci dox di lijjanti ba état ñëw euh, je pense ay vers 2015 2004 2015 fin 2015 état confirmé na il est prêt a construire le marché. maintenant il fallait ñu déménager parce que l'ancien site du marché mooy fi ñuy wax léegi résidence borom daaru bi. Mm-hmm. là aussi il fallait que la mairie. engagé wu pour wane état que ne on peut démarrer les travaux. Mm -hmm. c'est à partir de ce moment que mairie wut beneen annexe pour transférer fa jaaykat yi ñu mën a commencer les malheureusement bi ñu defee ba pare la sëriñ bi jël ndogal ne foofu léegi nañ ko transformer résidence borom daaru ñu nekk di dox di lijjantiwaat aussi ba amaat beneen espace fële ne le pour ne maintenant état type venir construire. Mhm. l' état a construit ils fini les travaux vers ñu rejoindre fële vers euh, fin 2017 2018 affaire yu mel noonu je pense mois de mai 2018 je pense lañ fa lañ fa dem au mois de mai 2000 2017 ça c' est l' état qui nous à construire le le le marché. Le marché. mais suñu jëlee euh, lu mel ne compétence su jàng. nga xam dañ ko transféré carrément collectivité territoriale bi ñu ñëw daar Moussi école yi fi nekkoon. école yi nekk bi Darou Mousty rek moo amoon mur de clôture. Mhm. école yi nekkoon biir Darou Mousty rek moo amoon mur de clôture yeneen école yi amul mur de clôture tey soo demee danga gis ne am na ñaari école ñetti école yoo xam ne ni clôturé nañ leen pourtant loolu amutoon. Darou Mousty bu njëkk salle de classe bu ñu ko tabaxee état mooy ñëw ne leen jox naa leen yi pour ngeen tabax salle de classe école bu ñu ko tabaxee état moo doon ñëw ne leen am naa école bu ma bëgg a tabax Darou Moussi jox leen ma espace ma tabax ko. ñu jox ko mhm. espace mu tabax. Mhm. pour la première fois dans l'histoire de Darou Moussi on a construit une école entièrement c'est à Ngomène peut-être après mën nañ dem xool ko. Mhm. école boobu ñun ñoo jël de nos ressources pour dire que école bi nekk kër Aliou fees na. nañ jëm au lieu que ñuy continuer di tabax ak wut ay abri provisoire nañ dem tabax ba ne école. mu toll ci ñaata. aujourd'hui am na cinq salles de classe. ci bokk doon xayma ci koppar Euh, cinq. Euh, day dix. non ay trente millions. trante millions duggagul na fa environ. Mhm. yoo xam pour construire les cinq salles de classe le mur de clôture les toilettes mu dese ñu une autre salle de classe pour ñu mën a am six salles de classe complet ak euh, le bureau du directeur. Mhm. mais à côté école Kër Aliou Ndiaye boobu ñu doon wax on avait trouvé des abris provisoires on a résorbé. l'abri provisoire bi nga xam moo fa nekkoon soo demee école Mbegere bi la même chose on avait trouvé un abri provisoire résorbé nañ également l'abri provisoire mais école franco arabe bi ñu am fii nii Bouchra mm. boo demee doon ko fekk ne école bi ñetti salle de classe amoon tey tabaxaat nañ fa ñun ñetti salle de classe pour mu am cours complet deux ñoo ko tabax de nos propres moyens beneen bi c'est l'IA moo ñu accompagner pour ñu tabax soo demee école 1 école Maud Habib, avec euh, l'appui du conseil départemental, on a construit également une, une salle de classe. Sans compter que dans toutes ces écoles-là, mm-hmm. école Daru Diop, clôturé Nenko, c'est un village, école euh, Daru Rahman, Romungen Kouchionbi, mm -hmm. clôturé Nenko, c'est un village. On a un projet avec des partenaires pour clôturer l'école de Sarsara. Après, il va nous rester l'école de Boulel, et l'école de, de, de, de Diwan Silla qui ne sont pas encore euh, clôturées. Dans toutes ces écoles-là aussi, mm-hmm. Mm-hmm. boo ci dem da nga fa fekk ñaari femme de ménage yoo xam ñooy nettoyer toilette yi da nga fa fekk aussi un gardien boo xam ne ni mairie moo ko jël en charge di ko fay chaque mois muy garde école bi loolu on n'avait pas trouvé les factures de ces écoles aussi c'est la mairie ki paye toutes ces factures amuñu problème fi mu non ba tey jii depuis le premier janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui d'accord c'est la mairie qui fait qui fait c'est dans le domaine de, l'éducation primaire mm-hmm. mais soo jëlee les cases des tout petits pour la première fois aussi mm-hmm. la mairie jël de ses propres ressources construit une case des tout petits mi kër Aliou Ndiaye boo demee da nga fekk la mairie moo fa construit une nouvelle case des tout petits kon li may wax nii nekkatul lu ndaw de ah ngi leen di wax liñ def maintenant ki farut ak ñun nag bu ko neexee mu ne defuñu dara mais weddi gis bokku ci donc ça ils peuvent le voir boo demee da ngay gis case de tout da ngay gis classe bi ñu tabax école bi la même chose mmh. donc loolu am na ci <clears throat> école primaire mais soo demee aussi à l'université nous quand on arrivait on avait trouvé que ne les étudiants qui sont à Dakar on les appuyait à hauteur de deux cent mille francs mmh. les étudiants qui sont à à Saint-Louis on les appuyait à hauteur de cent mille francs nous quand on est arrivé on a ça nous coûte un million six cent quatre mille par an xooloo doon jot deux cent mille nga dem ba un million six cent quatre-vingt mille donc sonne nee deful dara ça pose problème nga dem étudiant Saint-Louis nga leen yéen vous cent mille francs par an je vous donne trois cent mille donc soo nee deful dara ça mm-hmm. parce que li nga mën mooy comparer ko ak ki fi nekkoon nga ñëw nga dem à l'université Bambey il recevait rien du tout à l'université de Ziguinchor il recevait rien du tout à l'université de Kaolack rien du tout nga leen chaque année da leen appuyer man tam à hauteur de soixante-quinze mille pour démarrer avec vous parce que vous ne receviez absolument rien du tout donc ces étudiants là ne peuvent pas dire que mairie bi deful dara parce qu'on leur dira que au moins vous voilà ce que vous recevez ça nous coûte au moins 3 millions par an pour les étudiants alors que étudiants c'est pas une compétence euh, les jeunes Daaru si dafa am particularité mm-hmm. parce que comme Touba dañ fi tere football donc football mënut a am le maire mënut a dem di jiite di teg ay coupe on l'a fait une fois en 2016 le marabout n'était pas content on a dit nous mënatuñ jiite lu mel lu mel noonu maintenant libre à vous les jeunes ngeen dem seen football lu leen ci fekk xayru yéen a xam mm-hmm. su jàppale jote aussi dañ leen jàppale ba ngeen organiser wu moo chaque année tout les ASC yi fi nekk dañ leen doon appuyer bu ñëwee fii nii ku nekk ñu jox la ne la voilà la subvention qu'on vous donne soo demee terrain basket bi nekk fii da nga fekk ne réhabilité waat nañ ko ba mu baax. Mhm. jàppale nañ leen aussi mettre leen en collabo en rapport avec la Ligue de Louga pour ñu mën a am une association officielle des ballons aussi et des maillots ballons yi mi ngi ñëw maillots yi également commandé nañ ko pour ñu am may soo demee fii aussi da nga gis un parcours sportif boo xam c'est la mairie qui a aménagé le parcours sportif et on travaille avec l'ambassade de Chine pour mu gën ñu améliorer loolu nga xam ne am nañ ko am nañ ko foofu noonu soo jëlee matière en matière de santé nous quand on arrive foofu laa bëggoon daal sax parce que mais souvent waxagoo santé maa ngi ñëw santé <laughs> soo jëlee santé ñun bi ñu ñëw fii comme maire de la commune de Darou Mousty hmm. on avait trouvé que le centre de santé qui hmm. dépendait du conseil régional comme le centre il y avait que centre de santé. d'accord y avait un petit poste de santé muy poste de santé de de Arafa boo xam se c'est Fada en tant que ministre la santé qu'il avait érigé. Mhm. nekkoon na case mu def ko poste de santé mais amagul woon moyens yi waroon am pour dox malheureusement alternance am. D'accord. Euh, l'ancienne équipe a continuer mais on n'avait rien fait. merci monsieur le xam naa ne euh, yooyu parce que sama réalisateur mi ngi may ne li mi ngi may xamal li ci des. ci waxtu bëriwul mais faaw ma àggale waaw mais santé bi lu lu ma ñor la man mi parce que daanaka ci laay yëngu. Euh, waaye dama dama dama koy dama koy. dama koy tëxañal rek ci moins d'une minute rek. oui d'accord léegi santé wax naa la loolu la euh, aujourd'hui da nga gis ne le centre de santé dépend de la collectivité territoriale ñun ñoo koy jàppale ci lépp mm-hmm. da nga gis ne. tabax nañ poste de santé Sarsara bu bees sax ba ubbi nañ ko sage femme nga infirmier nga da nga gis ne poste de santé Yaari Dakar ak Kër Aliou Ndiaye on avait trouvé que Fada en tant que ministre de la santé avait construit ça en appuyant la communauté rurale pour construire ça nous quand on est arrivé on a équipé ces postes affecté fa du personnel postes yooyu ñoo ngi dox euh, boo demee tey jii nii Arafa danga gis ne ñoo ngi tabax maternité pour pour Arafa. maternité di di centre de santé de euh, di poste de santé Arafa boo demee fii nii ci caserne de sapeur am na une infirmerie boo xam cinq infirmiers ñoo fa nekk ak une sage donc soo xoolee rek da nga gis ne presque cinq postes de santé yu bees am na fi fekk fi centre de santé parce que Dibia da ngi ni moom tam tabax nañ ko pare équipement yi ñëw na mais malheureusement amaguñ autorisation état pour man ko pour mën ko bi bu ñu amee autorisation état man ko man ko donc en de santé ñu ngi na ambulance gis ngeen bërki dem rek y a une ambulance qui en cours moo ngi ñëw y a l'année dernière trente lits électriques lañ jox centre de santé parce que suñu partenaires yi nekk ñu ko yónnee mhm. c' est des lits avec télécommande ñoo ngi mhm. ci centre de santé bu mhm. chaque année aussi ces partenaires là dañuy envoyé des équipements du matériel boo xoolee lii nii c' est des couches c' est presque yoo xam ne ni ay partenaires ñoo ñu ko may pour lutter contre la la propagation de la de la Covid ambulance bi nekk en cours ak un appareil d'échographie euh, boo demee ci centre de santé bi aussi da nga fa fekk benn groupe électrogène bu mag boo xam ne c' est grâce la mairie qu'on a acquis ça c' est pas la mairie qui a payé mais la mairie moo dem lijjanti ba bañ indil ko bañ indil ko d' accord am na solo trop euh, mbokk yi kon euh, ci wàllu réalisation tamit am na ci boo xam ne nii ànd nañ visiter ko muy abattoir communal bi bi nga xam ne defoon nañ ko mbokk yi ñu ànd rek euh, ci laata bu mais danga may présenter mm. bala ñuy dem ci élément bi li nga xam ne moom mooy projet bi Euh, bu jëm ci wàllu gaz bi nga xam ne indi nga ko. voilà loolu noonu laa bëgg nga indil xam nga abattoir bi ñun bi ñu ñëwee dañu fekkoon ne amoon na abattoir bu fi am. boo demee sa abattoir ba sax buñ ñu masaan abattre. Mhm. doo bëgg lekk la ñuy abattre parce que dangay gis ne foofu environnement bi dafa salté dafa def yëpp nu on se disait mhm. mais fan la ñuy jëlee une solution parce que pour nous c'était inimaginable meme de dire nañ ko déplacer. donc on a réfléchi on a travaillé avec des on s'est dit mais pourquoi ne pas déplacer carrément l'abattoir mais on a dit aussi soo ko déplacer rek tabaxaat benn abattoir moom ak BMM dana dem ba xet gi dana sonalaat nit ñi on se dit donc il faut construire des biodigesteur parce qu'on l'a vu à Saint-Louis on l'a vu aussi ailleurs ñu gis le programme national de biogaz dirigé par Matar la mu ñëw fi en visite ñu won ko euh, kii bi ak un ami ki est à à Enda aussi ñaar ñoo ànd parce que c'est cet ami là qui nous a mis en rapport avec lui un certain Moussa Gueye ñu ne ñu il faut aller vers ça donc on a dit ok on a construit un nouvel abattoir euh, ñëw contractualisé avec une entreprise mu ñëw tabaxal ñu ay biodigesteurs léegi biodigesteurs yooyu nag moom mooy récupérer les excréments maanaam euh, neefere yeeg yooyu mm-hmm. pour defar ko gaz mm-hmm. defar ko engrais moo tax boo duggee ci abattoir ba doo am xet d'accord par rapport ak abattoir yi ngay dem wala par rapport ak abattoir bu bu bu njëkk ba léegi engrais bi muy produire nag mm-hmm. ñaari biodigesteurs yi mën nañ am deux cent tonnes d' engrais par an su fekkee ne fonctionné normalement. deux cent tonnes yooyu ñoo ngi jaayee ton bi trente mille francs ça nous revient à six millions par an bu bu bu biodigesteur yi fonctionner correctement. donc voyez que par rapport à l' efficience. Mm-hmm. même tu vois que abattoir bi day mujj di génn ji xaalis dootoo compter même trop. ci euh, euh, waaw la ñuy fay yu mel. ensuite on dit que yéen ñi nga xam yéen fi nekk parce que avant. abattoir amutoon gardien amutoon administrateur aujourd'hui il y a un administrateur deux administrateurs il y a un gardien il y de ménage ak ak un gar un boo xam ne ni mooy jàppale euh, femme de ménage pour que foofu mën a mën a setal gi mais on leur a dit il faut que ngeen organiser wu après en GIE avec les bouchers pour xool comment ngeen di exploiter l'abattoir par rapport ak li mën a génne moo tax ña fa nekk fi ni ni commencer par un petit chant et après on va comment. d'accord faire, euh, merci beaucoup euh, mbokk yi ñuy seetaan dañuy ànd ak yéen rek élément dem seetaan nag euh, la nga xam ne moom moo am ci abattoir ba administrateur yi dañu ñu présenté li nga xam ne moom la fi monsieur le maire wax léegi ñu ànd rek seetaan élément boobu. asalaamaaleykum man la Saliou Diouf maa fi nekk comme administrateur abattoir bu bees bi nga xamante ne nii moo nekk Darou Moussi. fii ñu taxaw nii fii la ñuy reye nag yi ak gàtt yi tamit am na pàcc mi nga xamante ne nii fa ñuy reyee gàtt yi mais pour l'instant pàcc moom tàmbalee ko. parce am nañ fi ñaari bio ñaari bio digesteur yoo xamante ne de 18 mètres cubes moo nekk nii mooy mbànd mi ak mbànd mële nga xamante ne ni day fournir gaz euh, à long terme à à court terme. waaw mbàq mi nga xamante ne moo jóge si nag yi moom la ñuy sotti si lee ngeen gis na le loolu bu jàllee si mbànd mi mbànd mi tàngal ko bu ko tàngalee daal di koy soppi gaz mais ba tey am na si leneen loo xamante ne nii day rogalaan jëm fee loolu yi jëm faloo loolu engrais la engrais la boo xamante ne nii euh, <coughs> compagnie yi nga xamante ne dañoo soxla engrais bu ñu yàgg bu fekkente dem na ba kii mën nañ ñëw jëriñ jënd ko loolu aussi nekk na loo xamante ne nii euh, day gën a taxawal abattoir bi day gën a rentabiliser abattoir bi. am na nag loo xamante ne dañ koy tuddee digesta lu bees la si Sénégal digesta mooy li nga xam day jóge ci mbànn mi parce que mbànn bu demee ba fees dañ koy épurer bu ñu ko génnee loolu tamit engrais la ñu koy waxee digesta ñu koy tuddee digesta. te euh, bëgg bëgg nañ fay def ay euh, kii tool. yoo xamante ne à titre expérimental bu ko defee ñooñu léegi bu fekkente ne nawet du romb nag bu ñu gisee lu résultat day tax ñoom ñu gën a am courage pour mën a jël si digestat bi. gaz bi moom euh, pour l'instant euh, dañoo nekk si kaay moomal leen waaw euh, à titre expérimental donc gaz bi liñ ciy jublu li si monsieur le maire jublu mooy fexe ba à à longue échéance à courte échéance. ñi nga xamante ñoo nekk ci pegg mi mën cee am jóg na nga taal fii kan moo fi yore briquet almet jërëjëf gannaaw élément bi nag monsieur le maire. Mhm. fii lañuy ñuy dellusiwaat ci maanaam élection yi surprise mën na am ci diggante Thierno Lo wala Rakam Baara. Euh, est-ce que Omar. waaw euh, bala may wax la aussi il faut moo wax tuuti ci état civil. parce que yéen ñëpp gis ngeen état civil yi am ci ci ci Sénégal ñun boo duggee tey si suñu état civil xam naa Serigne dana préparer pour ñu visiter état civil bi mm-hmm. après ñu dem visiter état civil ngeen gis ne état civil bi dañ ko informatiser aujourd'hui boo ñëwee di wër extrait de naissance soxlawul sax ngay xam seen numéro wala sa année wala quoi que ce soit il suffit de dire Madiop bi tey laa tudd on vous sort tout de suite l'extrait de naissance en une seconde on sort ça ça c'est une réalisation importante que nous avons réalisée na par rapport ak élection yi nga xam ne moom la ñu jëm ak euh, les potentiels candidats bon nu li ñu waroon d'abord dans un premier temps c'est pendant que ñi ngi fi ñu def loo xam ne nii comme ni ñuy wax weddi gis bokku ci ñun ñëpp dañuy gis ne voilà des réalisations concrètes xam nga boo gisee éclairage public bii solaire bi nii amutoon Darou Moussi et c'est pas dans toutes les communes c'est partout c'est pas dans toutes les communes c'est pas dans toutes les communes du Sénégal il faut voir dans la région de Louga dans le département de Kébémer particulièrement il a que deux communes qui en bénéficient c'est Darou Moussi et et Kébémer et l'État avait dit que c'est dans les capitales régionales et dans les capitales départementales foofu laa koy yóbbu mhm. ñeneen ñi ko am ñëpp mhm. c'est des particularités soit yaa un leadership affirmé boo xam dem na lijjanti ko wala c'est une relation. ah bon solaire euh, kon noonu la demee. non c'est ça l'État avait dit que dans les capitales régionales et dans les capitales départementales c'était ça au départ maintenant il y a d'autres communes qui en ont bénéficié parce que tout simplement c'est le manager qui est là ou bien c'est des relations particulières yu existent entre euh, ou bien c'est le statut de la ville par exemple aujourd'hui il y a que Touba boo xam ne ni particulier qui a moom am na ko hmm. ñeneen ñi ko am ñëpp c'est des relations yoo xam ne mais ñun suñ bos mm-hmm. ñun ñoo dem doxi ko mm-hmm. régler ko ba ñëw ñu jox ñu en quota de deux cents lampadaires yoo xam ne nii euh, boo demee yeneen communes yi peut-être ils ont plus peut-être ils ont moins mais on n'était pas du tout sur la sur la liste euh, boo demee Mesere doo ko gis d'accord boo demee yeneen communes yi doo ko gis maintenant par rapport ak élection yi ak euh, les potentiels wow. candidats oh je même pas citer vraiment son son nom mais tout le monde sait que moom ak magam ñoo bokkoon parti doon liggéey ànd xam dëkk bi di ñëw ci dëkk bi waa Daaru Musi si xam ñoom ñooy ñan lan lay représenté pendant cinq ans Thierno Lo moo nekkoon président commune rurale bu Daaru Musi mhm. pendant cinq ans mhm. de 2009 à 2014 moo fi nekkoon mhm. man bi moo koy remplacer passation de service ki ko signé du moom kaneen la joxoon signature am xamul bureau bi nan la mel pourtant pendant tout ce temps moom ak son frère là. ñoo son frère là aussi moo ñu mag moom moo Modou Diagne fade mi ñu àndal. donc kon kook su ñëwee di ñu wax waxu rajeunissement ça pose ça pose problème <laughs> koo xam ne ni am na 60 ans wala 60 ans tegal na. su ñëwee naa la non les jeunes. Mm-hmm. ça pose problème alors que ñun jegewuñ ko ba koy may donc nous on n'a pas peur de. de lui maintenant c'est normal ku nekk ñëw taxaw ne man voilà moo projet de société waa Darou Mousty buñ ko accepté accepté mais ñun li ñuy def moom weddi gis bokku ci la alo un troisième mandat pour Macky Sall bon ça ça aussi c'est un débat boo xam ne les gens les gens disent certains de disent que Macky Sall moo taxawoon ne man du ma nekkaat candidat bu mu paree sama mandat jeex mhm. d'autres disent bon c'est pas important mais ce qui est important pour nous pour moi à mon avis je pense que aujourd'hui les gens doivent s'entendre sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi. Mhm. c'est que par rapport ak suñu réew yi ni muy doxee. qu'on puisse le faire ou pas. bu ñu defee deux mandats on arrête. doy na c'est ça ma conviction. Covid 19 ak mauvaise politique bi nga xam ne état euh, par rapport ak euh, li nga xam ne maanaam euh, pandémie bi. je ne pense pas que ne y a une mauvaise politique de l'État. pour man l'État a bien géré et il est en de bien géré aussi la Covid 19. Mm-hmm. soo xoolee yeneen réew yi nga xam ne ñoo ñu wër en Afrique wala ci àdduna bi da nga gis ne Covid bi ñëpp la sonal premier vague bi yéen ñëpp a constaté ne des pays comme la France. dañ doon mujj sax di évacuer de la France vers l'Allemagne ou bien Italie vers un autre pays nga xam ne seen système de santé était vraiment éprouvé. d'accord dama doon toog di reetaan ma ne ñi doon wax naan le système français moo gën fii ci système de santé yi mi ngi nii. Mhm. ébranlé wu ba nit ñi tiit. mais à son temps le Sénégal tenait mhm. pourtant mhm. deuxième vague aussi le Sénégal tenait malgré que ñun nit ñi dañ naan leen respecter les mesures barrières duñ ko respecter duñ sol masque. duñ nangoo ñàkku ji duñ nangoo respecter les distances wala le lavage le lavage des mains mhm. malgré tout ça euh, l'État avec le professionnels de la santé ñoo ngi def des efforts pour gérer maintenant la troisième vague nag est arrivée elle est meurtrière et la contamination est rapide mm -hmm. chacun de prendre ses responsabilités moi je me rappelle bi ñu ne État nee na levé na les mesures que transport bi mën na dawaat na parce que la situation était quand même très difficile mhm. certains qui disaient que ne état na bàyyi na ñi ñuy liggéey ñoom ñoo commencé na état démissionné na moi j'ai dit que ma responsabilité j'ai commencé à la prendre depuis le début je ne compte pas sur le président de la République ou bien sur quelqu'un d'autre pour assurer ma santé la prévention c'est tout à tout un chacun de se dire que man kat nee nañ ma soo defee lii mën na laa musal mhm. moi je le fais donc l'État a fait des efforts énormes mhm. aujourd'hui c'est aux populations de soutenir pour que loolu man dem mais si les populations ne soutiennent pas. ñu jeexalee ci yor daar mairie Darou Mouhty yomb na wala yombut. non xam nga Darou Mouhty c' particularité parce que la commune de Darou Mouhty c' commune euh, boo xam ne c' est c' est c' est c' parce que. doon ko yilif daal voilà. dëkk bi dafa am borom. Mm-hmm. dañ naan la borom daaru. Mm-hmm. comme Touba ni ñuy waxee. don nu on est obligé ci liggéey bi ñuy liggéey. Mm-hmm. ñuy wax ak sëriñ bi. mais également di sóoraale les populations. d' accord et loolu c' facile. Mm-hmm. léeg-léeg nga am lu population yi bëgg loo xam bokkut ak ni ko sëriñ bi bëggee. merci beaucoup merci beaucoup monsieur le maire Madiop bi tey maire bu moo ti xanaa kàddu yi tàggatoo yi lan. kàddu waaw xanaa santaat bu baax a baax euh, suñu collaborateurs yi nga xam ne ñoo ngi fi toog ñoom si Cissé ñoom Malick ñoom euh, Lamine Sëriñ mm-hmm. ñi nga xam ñoo ànd bokk liggéey bi ak ñi nga xam ne mënuñu mënuñu ñëw sant leen bu baax. di mm-hmm. leen gërëm di wax ne commune bi daal ñun keroog bi ñu koy jël. jur boobu mën nañ ne fekk ñu ci kees ya nekk trésor deux cent vingt sept mille lañ fa lañ fa fekkoon le dernier compte de gestion aussi bi ñu gis fii nii lañ fa fekkoon ci ay ressource état commune bi dajale ko ba mu jeex ëppul vingt et un millions dont les treize millions venaient de l'état aujourd'hui ñun ñoo ngi dem ba ay trois cent millions tey jii nii yoo xam ne dans le fonctionnement. Mmh. ñoo ngi dajale sur nos ressources plus de 106 millions di dem ba 147 millions lañ mujj am. dans le dernier budget. di dem ba à des taux de recouvrement de à pour cent. au moment les anciennes équipes n'ont jamais atteint de de recouvrement maintenant ñoo ngi dem vers des élections ñoo ngi invité encore une fois les populations à pouvoir faire la différence wax joo xam ne ni ay wax la ju mën a nekk ak wax joo xam munta nekk ak jugé ñu mhm. par rapport ak les compétence yi nga xam ne moom lañ ñu dénk ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégglu si bu fekkee ne wax nañ loo xam ne nii juum nañ ci jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan merci beaucoup mu nekkoon seen euh, émission découverte ak euh, bi Bitèye maire bu Darou Mouhty euh, di gërëm bu baax a baax tamit collaborateur mi di gërëm tamit bu baax a baax suma réalisateur ak sumay caméraman Serigne Mbacke Fall Talla Samb Bekay Ndiaye ci montage bi di gërëm bu baax a baax tamit waa KSS Touba KSS Kër Serigne Saliou Trading di kontaan bu baax a baax ci ñëw bi nga xam ne ñuy monsieur le maire invité nañu fii ci Darou Mouhty kon ñoo jeexale premier maire wala premier magistrat premier magistrat lañu wax. bi ñu waaw. ne Darou Moussi moom. <laughs> dama euh, parce que bu ne première maire day mel ne maire mi ngi fiy soog a am. oui oui mooy le premier maire mais aussi le premier magistrat de la ville. d' accord parce ngi doog di nekk commune. mais fii moom nee naa la sëriñ bi moo nekk ci. moo nekk ci merci beaucoup jëm mbokk yi ci seetaan bi dig daje ci yeneen jotaay.